di informatique bi te xëy na dérive yi ciy bëri euh, buñ ci yegg rek c'est parce que kàllaamay nasaraan bi ñuy utiliser lu ci ëpp duñu comprendre nan ak naka la ñu koy defee bii nii dañu koy dëgtal ànd ceeg Christopher euh, Douglas di Tony Mancabou ce sera les amis tey nag moo nekk suñu premier épisode ci seen podcast euh, Wolof Tech donc li ñuy njëkk def mooy expliquer leen lan mooy Wolof Tech ak lan moo ko tax a jóg donc Wolof teg benn initiative la boo xam ne nii dañ ko jël pour expliquer les bases de l'informatique les concepts de base mais dans la langue wolof. donc pourquoi ñu choisir langue wolof te parce que dañoo xalaat ne dafay boo bëggee am benn connaissance bu dëgër ci benn ci benn domaine ci benn wàll. boo ko jàngee ci sa langue maternelle donc da koy gën a mën a comprendre donc dina la permettre aussi nga bañ a jaawale yu bëri. et nga gën a mun a xam naka ngay defee say recherche après nag boo xamee les bases en wolof et tout ça mun nga dem nag sur internet xool gën a approfondir say connaissances euh, dem ci bibliothèque yi ut ay livres et tout ça parce que livres yi gën a bëri ci informatique dañ ko bind en français wala en anglais wala yeneen donc du coup euh, ñun suñ objectif rek mooy indi le maximum d'information en wolof pour que nit ñi gën a ràññeele gën a xam euh, différent domaines yi am ci informatique ak lan mooy informatique ak ci lan lay yëngu ak aussi ci yenn technologie yi ñu dugg ci expliquer ko en wolof euh, faram ko ba nga xam ne nii da ngay mën a comprendre la technologie comprendre lu bëri quoi ci informatique donc sans plus dañuy dugg ci suñ première émission yi nga xam ne ni mën na tuddee lan mooy informatique ak lan mooy différent Euh, pàcc yi nga xam ne nii moo am ci biir informatique Aïcha mi ngi noonu di ko ci jaajëfal bu baax a baax kon nag Baye Assane ñu toll ci ñaareelum pàccum suba teel dalal ay Aïcha ngir waxtaanee rubrique société waaye tamit dalal kii di Nafissatou Fall tantôt annoncé woon naa ko ci rubrique culinaire pour parler justement de bien manger et de manger sainement maman Aïcha maa ngi lay ziar bu baax a baax. Asma Khadija maa ngi lay euh, delloo ziar di fay nuyu euh, euh, Papa San Papa San di fay nuyu itam kii di Nafissatou Fall. Germaine Barros maa ngi lay fay nuyu itam euh, di am mbégte lool bokkaat ak yéen plateau bi di waxtaanee tey jii lu am solo rek lu nga xamante ne euh, nemmaneeku nañ ko ci jamonoy màggal gi ñu génn bërk démb rek. mi ngi noonu moom Nafissatou dañu koy ziar bu baax a baax Val Ndiaga Yaram noo def. maa ngi fi asma maa ngi lay nuyu di la delloo ziar di delloo ziar tey di nuyu ñi nga xamante ñoom laa bokk